waxtu des ngir ñu màggal fetub korité ba na ay jàkka yu bëri yu ne biir Dakar di ko waajal. alhamdulilah ci grande mosquée bu Dakar mi nga xam ne nii fa la njiitu réew mu Sénégal war a jullee ñoo ngi seetal di jooyantiwaat lépp lu mën a gàkkal bi la bés. gars yi ñu ngi liggéey ñii ñu ngi ci sonorisation bi di ko xoolaat. ñii ñu ngi ci làmp yi di ko leeralaat ñi ñi ci tapi yi euh, alkaati yi euh, ñu jaajëfal leen ñoom tam ñu ngi fi di teg seen disposition sécuritaire donc yooyu yëpp ñu ngi ci actuellement nii euh, def loge yi am na gan yoo xam ne soo leen di am doo leen mën a jaxase ak ñëpp li ni mel lañu ñu nemmeeku it ci Masaalikul Jinaan mi nga xam ne ni mbooloo mu tàkku moo fay faral di julli at bu ne. installation bi li ci dëkk mooy dañuy aspiré waat euh, mokkeetu jumaa yi ndax xam nga ci lañ ndogu ñu séntu weer wi gis ko kon faw ñu nettoyé waat barab bi bu defee ñu nettoyé ko nettoyé esplanade bi ngir mbokk yi bu ñu xëysee suba ku indiwu si jaade it boo. jullee ci esplanade bi ñu taxaw di nga mën a julli ci julli gu set julli gu laab. ñaari jumaa yi yàgg di daloo korité ba tax na bëgguñoo bàyyi benn détail. donc 60 ans ba léegi chaque année. nga organiser julli jumaa organiser julli korité organiser julli tabaski dafay mujj nekk loo xam ne routine lay doon dafa am loo xam ne lii sauf lu extraordinaire ñun liñ daan def rek la ñuy def. nañ ko daan waajal rek lañ koy waajalee incha allahu rabbi. ci atum 2024 bi mu jullit yu nekk biir réewum Sénégal ñooy màggal ba sub korité ci benn fan mu di mbir moo xam ne ni doon na mbégte ci képp ki nga xam ne ni jullit nga